asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne ni ñuy bàyyi xel ci Argentine TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu ànd ngeen di ànd ak ñun. di am mbégte loolu nag ci eh, barab bu sell bi nga xam ne fi lañu nekk tey ak yéen di leen fi nuyoo muy fii ci dëkk bu sell bi waaye ci kër Serigne Touba gi nga xamante ne bii moo fegoo ak jumaa ju sell ji. waaye xam ngeen ne nag eh, ci suñu wetu ndeyjoor ñoo ngi ànd ak Serigne Talla Sall eh, ci suñu wetu càmmoñ itam ñu nekk ak Serigne Dame Cissé. ñaar ñooñu nag bu ñu leen tuddee xel ni dana dem ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne bii taalibey Serigne Touba yi nekkee ci réewi Argentine yi ñi ngi koy defal Serigne bi mu di daayira yi nga xamante ne bii taxawal nañ ko fa ba lëkkaloo ci ab fédération bu am solo boo xamante ne bii mboolem taalibe gis nañu bu baax a baax seen taxawaay. tey ji nag ñu fa yéene seq ak yéen ab jataay bu tënku rek boo xam ne du gudd lool sax waaye e, sabab bi mooy e, dañ ko sàkku ci ñoom ngir ñu baaxe ay leeral ci seenu doxalin foofa. Euh, waaye tamit taxawaay bi nga xamante ne bi am nañ ko ci nañu fay liggéeyale Serigne Touba laataa may ñëw ci Serigne Dame damay njëkkee euh, Serigne Talla euh, gannaaw bu ñu nuyoo Serigne Gora Seck mi nga xamante ne bi moo nekk foofa ci Argentine di taxaw lu jëm ci wàllu télévision bi tey ñuy waxee di gërëm Serigne Cheikh Sam mi ñu àndal tey ci liggéey bi itam Serigne Talla gannaaw bu ñu la nuyee ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi waaye dikkal ñu rek ci taxawaay bi nga xamante ne bi taxaw ngeen ko foofa ba nosu tënku ci ak kuréel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 Eh, Argentine yi di nuyu suñ góor mi nga xam ne moom it liggéey bi wax dëgg yàlla da ciy def taxawaay yu am solo di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Argentine yëpp. di nuyu suñ Cheikh Samb mi nga xam tamit mooy suñu caméraman bi nga xam ni moom it wax dëgg yàlla liggéey taxawaay am na solo di nuyu suñ daam si mi nga mi ñu feggool tamit seen wetu càmmoñ ginnaaw loolu nag ñuy am mbekk mu rëy ci laaj bi nga xam ne suñ Mor Samb laaj nañu ko muy laaj bu kawe bu solo boo xamante ni bii eh, dana mate sëkk ñu waxtaanee ko ndax ku ne xam ne Argentine Euh, dëkk bu yàgg la te dëkk bu yàgg liggéey sëñ Tuubaa la ndax mën nañoo wax ni jamono sëñ Saaliw ba léegi ñoo ngi ci biir liggéey boobu ndax ñun ci kàttanu yàlla Argentine ñoo ngi fa teewoon 2007 euh, ca fin ba lañ fa lañ fa nekkoon bi ñëwee tamit nekk ci liggéey bi yaakaar naa ba ñëwee dugg ci liggéey bi ba tey jii toujours ñoo ngi bokk ci jëwriñ yi nga xam ni dañuy saytu liggéey bi ndax ci biir loolu sax ñun ci lañ jëkk euh, nekk ci daayira Miftaawu Nasri bu tubaa Argentine nekk fa jëwriñ même daayira daaru salaam bi nga xam tamit waa mooy waa kër maam si Anta. ñun ñooy seen ñun ñooy seen jëwriñ hmm. ci biir fédération bi nga xam tamit am na nga xam ni 42 daayira moo ko lëkkale. Hmm. foofu tamit ñoo ngi fa nekk maam commissaire au compte. Hmm. ak finance boole ko. ci yooyu ci taxawaay yu solo yooyu nag. ñun guddeeg bëccëg suba ngoon ñoo ngi ciy liggéey. ci biir loolu nag Argentine bi ñuy bi muy doog a am daayira bi. Miftaawu Nasri boobu moo fa nekkoon. waaye dañoo dem ba gis ni daayira yi bari na. te ñun ñëpp dañuy ànd di liggéey Sëñ Tuubaa te te alxuraan wax ñu waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu te inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilillahi safan kanu bunyanun marsus ak wa taxawunu alal birri wa taqna wala wa taqwa wala taxawunu bil ismi wal udwan ci loolu lañ tënku gis ni comme ni ko sëñ Cheikh Gaynde ma tënki woon ci mbirum daayira rek ñu nit ci loolu lañ bëgg dox loolu tax na nag ñu daal di woote ak mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi nga xam ne moo nekk ci réew mi lépp ci ndigalul Serigne Cheikh Mat lay Mbacke moom moo jëkk a organisé wax yàlla jataay boobu woo mboolem taalibe yëpp ndax liggéey bi booba ñëpp ngi liggéey waaye liggéey boobu amoon na ak fasantikoo koo xam ne maanaam déggoo amu foon waaye nag ci biir loolu bi ko si Cheikh woote nag ci leen daje bokk toog waxtaan daal di nas benn kuréel boo xam ni maanaam dañ ko tudd nag fédération Miftaahul Nasri bu Touba Arsanti boobu ak léegi maanaam benn ziar lañ defoon at mi jàll ci 2017 bi ren jii lañ ñëwaat defaat ziaru 2018 ci biir loolu nag wax dëgg yàlla mbokki taalibe yi ñoo euh, dañoo organisé wu ba def bureau bu am solo boo xamante ni bii maanaam moo tënk mboolem liggéey bi chaque weer aussi dinañ daje ci ci maanaam weer wu nekk dinañ daje ci ci kër Sëriñ ndaw gi ñu di ko wax place boobu ci am chaque weer danañ fa daje benn yoon maanaam waxtaane fa lépp loo xam ne dafa dafa jëm ci liggéey bi maanaam chaque at tamit danañ def assemblée générale boo xam ni dañuy woote mboolem jëwriñu daayira yëpp maam ñu teew fa ñu waxtaane nan lañuy def ba kër Sëriñ Tuubaa am ci jéego yooyu nag lañ dox di ci dox di ci dox ba yàlla dogal ñu am fa kër goo xam ni wax dëgg yàlla pakk bu yaatu la bu rëy la bu am solo boo xamante ni bii Sëriñ aboo alxalifa Mubara moom moo ñëwoon tegal ñu xeer bi wax dëgg yàlla yaakaar naa ci jamono yi jàll rek képp ko xam yaa ngi topp Argentine TV gisoon nga xeer wi ak bi mu ko tegee ak pàkk bi ni mu yaatoo ba jamono yi ñu waxee ni sax ñoo ngi jëm ci dëdmal pour liggéey ko tey sax bokk na ci li ñu jébbal maanaam xalifa bi bokk na ci liñ ko jëbal mooy kër Sëriñ ak addiya kon loolu bokk na daal ci li nga xam ni mën nañ ko leeral en attendant bu demee ba ci kanam incha allah loo ci laaj te bëgg koo leerul incha allah dañ la ko leeral incha allah taala jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Talla euh, dégg nañ bu baax kàddu yi muy ay leeral yu am solo jëm ci taxawaay bi nga xamante ne bi taalibe yi am nañ ko foofu ñuy gërëm itam sëriñ Cheikh Sam mi ñuy jan lool euh, sëñ Dame dégg nga bu baax li nga xamante ne bi sëñ Talla wax na ko muy pas-pas bi nga xam ne taalibe am nañ ko ak lëkkaloo gi ñu lëkkaloo nga xam ne ay daayira yu bëri bëri lañ fa def waaye àgg sax ci wut kër Serigne Touba def ci ay koppar yu takku lu ëpp cent yaakaar naa loolu am na solo euh, te ñuy fàttali ne jataay bi tey ñi ngi ko amal mu dëppook bis bi nga xam ne doon nañu ziyaare si ku tedd ki dégg nañ sax Serigne Dame biral lu ni mel ci kanam Serigne bi mu lu ko lool euh, sëñ daam lan nga ñuy dolli ci taxawaayu taalibe yi ak solo si nga xamante ne bii liggéey bañ fa sumbal sëñ Touba am na ko. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu fu ngeen mën a nekk ci goxi àdduna yi fasantikoo yi di jiital ci nuyoo bi ak saahibul fadila Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu Serigne Touba gépp ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu sëñ Mortala Sall min àndal ci plateau bi di jëwriñu Daaru Salaam waaye di commissaire des comptes ci fédération bi waaye ñu ngi nuyu Serigne moor Joxaane ak Serigne Cheikh Samb ci seen taxawaay bu mat solo bu am solo bi ñu taxawee ci ziar bi at mu ne waaye ñu ngi nuyu seen kilifa sëñ Góora di ko jaajafal bu baax ci yitte jim jox ziar bi kon ginnaaw loolu ci euh, kàddug sëñ ba Géey la ñuy waxee ak sëñ Bamba Ñang ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoom kilifa yi nga xam ne ñoo nu yabal euh, ci ziar bi euh, sëñ Mor sëñ Mor ñu ngi lay wax ne pasteefu taalibe yi ca Argentine. ak liggéeyub Serigne Touba fi ko teg. loolu lu kawe la. ndax ñun danañ ci mat seede ndax yaakaar naa 2001 lañ dem Argentine. 2001 ak léegi yaakaar naa fukki at ak juróom yi moom day teg waaye du wàññi du te ban fa demee danoo fekk euh, daayira Serigne Touba nekk fa. kon lu yàgg la. ñu nekk ceeg ñoom ba euh, ni ko Serigne bi tuddee rek. Miftaahu Nasri la ko tuddee woon. waxoon nu ne ca waxam ju tedd ja yàlla na leen fa ndimbalu Serigne yàlla na fa ndimbalu Serigne Touba fekk yàlla na leen fa ndimbalu Serigne Touba fekk ba mu ñetti yoon mu daal nuy ñaanal jox nu suuf yaakaar naa loola tax na Argentine bokk na ci réew yi nga xam ne moo ëpp lu fa dugg ci at yi la waral loola mooy tey da caa tegoon na ndax man ngeen fa mbooloo ñu ne teg mu doog a wax loolu moom moo wax ne ndax man ngeen fa mbooloo mbooloo moom sëñ Saali waxoon nag mooy mbooloo mi nekk Argentine te loolu dara waralu ko lu pas-pas bi amoon ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa dafa ñun dañoo nekk ci suñuy tool bopp te tool sori lool ñu nekk fa nag di liggéeyal Serigne Touba ci toolu àllarba muy toolu àllarba Cheikh Moustapha ba digle woon kon ku nekk sa tool yi bopp foo loo mën di sori da nga def àllarba joo xam ne àllarbay Serigne Touba la ah, àllarbay Serigne woon benn daayira nag moo jur ñeent fukki daayira comme ni ko Serigne Mortala waxee ak ñaar wala ñeent ndax daayira ci ci euh, fédération ci daayira lay njëkkee waaye daayira boobu nag moo ëmb mboolem fédération moo ëmb mboolem daayira yi nekk asante gépp kon loolu pas pasi taalibe yi ak seen ak seen euh, bëgg liggéeyal Serigne Touba loolu Serigne Mor moo waral daayira bi di dox ba nekk fédération at mu jot ñu di ko jébbale te tey ren ji ku ñëw ku teew fii ci jébbale bi da nga xam ne am nañ ci taw tawfeex ju rey rëy ndax tawfeex ji ñu am mooy mu sëñ ba siiru Mbàkke muy mbégte di ñu koy joxli ay kaddu yoo xam ne dafa bàyyi ko ci kaddu jëwriñ ya mu jox ko yitte jox ko noppam déglu ko ba pare ñaanal lu yàlla suñu borom ne aajo yëpp yàlla na dana ko faj ci ci ci coobareem ci kattanam kon loolu tawfeex la ni ma ko waxee rek yëkkati muuraakeem boppam jox na ko muy addiyee di addiyee sëñ bi kon loolu sëñ Mor day wane rek ñun ñun ñi fa nekk Argentine war noo gën a góorgóorlu war a jàppante ci Pastef ak ak ak ak ak nangoo liggéeyal Sëriñ ak kër sëñ tubaa googe ñu fa semb tan wax ko sëñ bi ba mu dégg ko yàlla na suñ borom def mu bokk ci këri sëriñ tubaa yi nga xamante ne moom la sëñ tubaa a nangu ci këram yi kon daal sëñ Mor ana ñu teewlu taxawalu foofu ba nga dellusiwaat léegi ci yeneen kàddu incha allahu taala sëñ Dame Cissé daañu la jox léegi nga tëj ci poñ bu mujj bi nga xam ne ci yow lañ koy jëmale waaye laataa loolu euh, ñu delluwaat ci euh, sëriñ Talla Sall sëñ Mor Talla Sall mi nga xam ne moom la ñu feggaloon léegi suñu ndeyjoor wax nañ leen ko Euh, sëñ daam wax na lu am solo muy lu mat ñeen fukki daayre yoo xamante ne bi lëkkaloo nañ ci ay fédération di fa liggéeyal Serigne Touba mu mel ne sax bari na bis yi ñuy amal tey fii ci dëkk bu sell bi ñi nga xam ne mënu ñoo ñëw itam dañ koy dundal foofa muy lu am solo euh, nga xam ne bu ñu déggee wax bi dëgg euh, liñ ci mën a jàngate daal mooy xëy na taalibe yi ña nga foofa sori nañ ci zaayir waaye ñi ngi liggéeyal Serigne Touba liggéey boo xamante ne mel na ni ñu ngi ci biir dëkk bu sell bi ci wàllu organisation bi kon ndax doo am tuuti looñu ci tënkal rek euh, ñu soog a euh, jox sëriñ daam mu tëj. waaw ak sax waaw jërëjëf suñ moor jërëjëf suñ Mor ci kàddu yu am solo yooyu waaw ñu dikkaat rek ndax comme noonu nga ko waxee rek ndax euh, organisation bu moom liggéey la bu am solo boo xam ni mm-hmm. mbokki taalibe yi Eh, ci mbégte mu rëy lañ nekk ndax mbégte mu rëy lañ nekk mooy danoo yàgg sàkku kër Sëriñ Tuubaa hmm. mu mu jafe woon nu hmm. waaye nag ñu demee ba ànd nekk benn rek hmm. dañoo daal di yomb lool kon loolu di tegtale ni maanaam mbooloo mi bokk na ci li leen gën a amal sens te gën a gaawal seen mbir mooy fu ñu mën a nekk ñu ànd nekk benn comme li nga xam ne mooy sosu daayira te tax a jóg daayira loolu muy lu am solo loo xamante ni bii ci loolu lañ nekk guddeeg bëccëg suba ngoon di co di ko waxtaanee di yëkkateendoo di tegandoo ndax maanaam fédération bi li muy liggéey ci ci at mi bu ñu xoolee li muy liggéey ci at mi yëpp maanaam euh, te boo dugalee andi addiya mii ci biir li muy dimbali ci ay doomu aadama yu loru maanaam moo ëpp doole fuuf li muy indi ci addiya ndax doomu aadama mboolem doomu aadama bu fa loru fédération bi jël na ci ay matukaay yu am solo jël ci ay taxawaay yu am solo day daggal bi nit ñi di dimbali nit ñi bu baax a baax loolu nag tax na ñoo ngi woo mbooleem waa Argentine yëpp maanaam foofu waaye mën a nekk rek nga bàyyi xel fédération bi xam ni euh, liggéey bu solo la te mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ko seq liggéey bi dara lëntu ci lépp leer na vraiment kon mboolem jëwriñ ñi nga xam ñoo nekk ci Argentine yëpp kon ñoo ngi ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla rek mu gën a jëmale liggéey bi kanam waaye mbokk yi fa nekk daal moom jàmbaar lañ ci liggéey bi lool ndax bépp bis boo xam ne am na fii ci Touba maanaam taxawal nañ ko Argentine at mi yëpp nag mboolem mboolem at mi yëpp maanaam bis bu am fii rek tax def nañ ci ay taxawaay yu am solo fële ci Touba Argentine mm-hmm. te dañuy jël saal def ci la ci war lépp bernde mm-hmm. comme ni ko sëriñ bi waxee ne ci taasimo bi sunnat mm-hmm. koy màggale wax dëgg yàlla durus fa ci alxuraan ak yëpp loo xam dafa aju ci bis bi comme bu ñëwoon Touba dañ koy defee noonu lañ koy defee foofu ba ci màggal Touba gi nga xam ne moom at mu jot day ñëw ñun màggal Touba gi fi mu toll buñ xoolee at mu jot liñ ci daj ci organisation ak niñ koy taxawale maanaam fi mu daaw buñ ko xoolee daanaka dañuy romb vingt nangam million yoo xam ne def nañ ko ci màggal ci màggal gi national maanaam euh, Touba Argentine moo jël pay ci mbooleem màggal yi nga xam dafa am bitim réew yëpp loolu nag dañ koy sant Serigne Touba di ci di ko bége ndax liggéey Serigne Touba moom ku ne xam ne amu tànk ca kaw ca kanam rek ci biir loolu nag la ñuy profité koon di soññiwaat mbooleem jëwriñ yëpp ñu gën a taxawaat ci liggéey bi gën a xam ne liggéey Serigne Touba rek moo fi des ndax nit ki li bëgg maanaam dafa war a xam ne maanaam ci liggéey Sëriñ Tuubaa rek la ko mën a amee ndax waqatil xawaaji lazina daamu fi xidmatin wa hablu maaraamu kon foofu fa la lépp nekk waaw ndax sëriñ bi maam fàggul na ko képp ko liggéey rek maanaam moom say ajo faju kon sëriñ bi sëriñ Sàmbu bëgg nañ ci jataay bi temps bi moo xat sax ba niñ ko yéenee détail ak niñ ko bëgg a leerale xam naa xëy na duñ ko mane noonu waaye incha allah du jomb beneen jamono incha allah dinañ ci defar yeneen jataay pour gën yaatalaal liggéey bi ndax yaakaar naa liggéey bi ñun moom mën nañ cee fanaanee wax yendoo cee wax ndax dara umpuñu ci ba bañ ci duggee ba léegi lépp lu ci xew rek maanaam xam nañ ko te wax di yàlla ñoo ci sant Sëriñ Tuubaa baax baax ànd ko mboolem mbokk yi taali bi yëpp di bëggee ñëpp nag jërëjëf waaw kon xam naa suñu kàddu yu tëj nag mooy di santal Sëriñ Tuubaa bu baax a di ñaanal mboolem taali bi yëpp rek maanaam ñu gën a fonkaat liggéey Sëriñ Tuubaa bi gën a jàppante gën a wóolonte gën a soppante gën a bëggante ngir jëmi Sëñ Tuubaa suñ ko defee rek lépp loo xam ne bëgg nañ ko am dinañ ko am kon ñun loolu la ñuy soññ ci mbokk yëpp rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu jox Sëriñ Dame Cissé moom it mu tëj dégg nga sa waay fi mu bàyyee ci bis yi nga xamante ni ñoo ngi ko fay amal muy màggal Touba muy mboolem bis yi nga xam ne ay bis la ñu ñuy dundal fii ci Touba ñu ko dundal foofu loolu yaakaar naa dara ëpp ko solo waaye mel ne tamit taxawaayu daayira yi bokk na ci sax Euh, di gindi ni ñi ci wàllu sàkku xam-xam ci mel noonu ak fexe ba ñuy dund tuubaa comme ni ñu koy faral di waxee euh, yaakaar naa loolu am solo la euh, te bokk na ci sax xanaa li tax ñu am kër sëriñ tuubaa gi foofu nga xuusal ñu ci ci wet googu dëppale kooku itam kàddu yi nga xam ne moom koy tëjee. waaw ah, jërëjëf sëñ Mor ñoo ngi lay sant bu baax di wax ne ci loolu nga wax ci wàllu jàngale mm-hmm. daa munta ñàkk ci daara Serigne Touba mm-hmm. ndax yaakaar naa. man mi bokk naa ci ñi nga xamante ne. Mhm. ñoo yor wàllu culture ba foofu ci Argentine wala ñu jiitu ko ci daayira yëpp. Mhm. te it euh, danañ faral di soññee ci daayira yi. Mhm. ci wàllu lislaam ak taalibe bi ak euh, Serigne Touba. ba euh, màggal fa am ni ko sëñ Mor Talla waxee. màggal ko fa am rek. danañ ci danañ ci fàttalante li nga xam ne mënut a ñàkk ci ab julit ak ci njàngaleem Serigne Touba. ak mboolem ñeen ko seexal ca dëkk ba rek ku mer na sëñ Adama Ndiaye. Euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm waaye suñu Mourtala Touré ñoom ñëpp day kilifa te tey mu waroon fee teew sax waaye dafa am ngant ñoo ngi koy ziare bu baax ba bokk ci waa kër sëñ Muntaxa ñaan ko sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa sëñ Mourtala euh, euh, ñaan suñ borom ne ko na nga def sama kër yëpp mu taxaw taxawaayu jàkka wala jumaa kon loolu tamit day day dellusiwaat rek ci njàngaleem Serigne Touba ndax kër Serigne Touba moom faaw mu am école faaw mu am jàkka kon loolu moom ci procès Sëriñ Tuubaa bi ci kër Sëriñ Tuubaa gi la bokk mm-hmm. maanaam ci premier procès bi mm-hmm. mooy fexe ba wutal fa Sëriñ Tuubaa jàngukaay boo xamante ne mm-hmm. eh, ndaw ña fa nekk juddoo fa eh, di nga xam ne seeni i wayjur ay ay jullit lañ ak ña fa nekk di tubaab di tuub seeni doom nekk fa ngir bëgg xam l'islam loola buñ fa demee danañ fa mën a xam lan war a xam ci lépp ci l'islam kon loolu eh, mébét la bëgg la procès la ci kër sëñ Tuubaa mm. loolu nag kilifa yi bàyyi nañ ko xel baax a baax mm. euh, kilifa yi mooy sëñ Yaxooba Géey ak sëñ Bamba Ñang ak mboolem ñi nga xamante ne ñoo ngang fédération bi ñoom ñëpp loolu rek mooy seen bëgg-bëgg ndax taxawal sëriñ Tuubaa barab moom ci réew yooyu loolu euh, tawfeex la ju rëy rëy mm. ndax ba mu naan xusuuri xallat wa lahlu andi tafaraxat li madahi la si anhu madi yu xasiru samay njënd wet na samay dëkk wet na samay kër wet na ngir liggéeyal Moustapha alayhi salaatu wasalaam wala tagg ko waaye yàlla euh, suñu borom fay na ko ngeen ci fay ndax fépp foo xam ne julit yegg na fa taalibe Sëriñ Tuubaa yegg na fa te fu taalibe Sëriñ kon sëñ Mor foofu Argentine euh, fa mu nekk ak nam soree euh, bu bu demee ba taxawal fa Sëriñ Tuubaa kër loolu pasteefu taalibe yi ak seen bëgg lu baax ak nemmiku Sëriñ Tuubaa te xam ne murit moom fu mu nekk rek ak Tuubaa la maanaam fu taalibe Sëriñ Tuubaa nekk na ko def ni tubaab mu di tubaab ndax foofa la bëggu sëñ tubaa rek lan fa nekkee muy liggéey jaamu yàlla liggéeyal sëriñ tubaa ñett yi daal lan fa nekke waaw mboolem daayira yi fa nekk yëpp alarba bu jot ñii alxames ñii alarba danañ wàcceel sëriñ tubaa kaamil jox sëñ tubaa addiya loolu nag wax dëgg yàlla moom tawfeex ju rëy rëy la ci bitim réew maanaam daayira bu ñuy wàccee la sëriñ tubaa kaamil di ko addiyal di ko addiyal moom ci boppam ndigalu sëñ Muntaxa lii nga xam ne da koy digle mu jëm ci fàttali. Mm. ak ñaan mm. ak sarxe yëpp lu ci rot rek tabbi na yegg na Argentine mm. te ni ko sëñ Muntaxa santaane lañ koy defee ba incha allahu taala dimanche jii di ñëw it noonu lañ ko fas yéene taxawee ci kilifteef sëñ Yankhoba Gueye ak ñam àndal ñëpp ci liggéey Sëriñ Tuubaa kon daal sëñ Mor loolu bokk na ci li nga xam ne moo mooy li laaj ci wàllum njàngale ak pas-pas bi am ci kër sëñ Tuubaa gi ci lu mel ne jàkka ak ak ak école nga xam ne mooy njëkk ci kër sëñ Tuubaa waaw kon xam naa li koy tëjee mooy di leen jaajëfal bu baax ci taxawaay bu mat bu am solo bii ak ni ngeen waajalee wàccaay wi ci avant première ba ba fi yegg si fii kon daal ñi ngi soññee rek bu baax a baax comme ni ko naka naka jekk ni ñu ko daan soññee ci ñu gën a góorgóorlu ñun ñëpp ci li sëñ Tuubaa ñaano ñaanoon yàlla te yàlla may ko ko dafa wax ne yaa rabbi ijaalil muridina ma an fi hisnikal hasin wa samli ajmaa yàlla maa ngi lay ñaan nga def murid yëpp fu nu mën a nekk ànd nekk benn loolu ñaan ak sëriñ Tuubaa la ba mu ko ñaan la ko yàlla defaloon ndax murid yi moom fu nekk rek benn lay doon ndax ni ko sëñ Mor waxee rek lépp lu jak Argentine rek daal taalibe sëriñ la xaar xaar nu ci xaar nu ci consul Argentine amul ambassade amul waaye taalibe sëriñ Tuubaa ñooy consul sëriñ Tuubaa ñooy ambassadeur bi lépp loo xam ne lu fa jóge la muy ci wàllu koor wala lépp lu jëm ci wàllu ndimal ña ngi ko fay taxawee ba mat sëkk kon loolu dañuy ñaan rek mu sax te yàgg te sëñ tubaa euh, sëñ gën noo dëgëral gën noo dooleel gën a yokk xewal yi ba taalibe yi sëñ tubaa yi lépp loo xam ne song nañ ko rek mu daan ko kër gii ñu ni sërit yàlla na yegg ak jàmm te fekke ko te tal ko ci lépp ci barkeb Cheikhul Khadim kon daal ñu ngi leen di jëfal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa mbokk yi nga xam ne kon yéen a doon bàyyi xel Argentine TV euh, ñu ngi leen di gërëm di rafetlu ànd ngeen doon ànd ak ñun muy ab jataay boo xam ne rek leen ko doon jagleel ngir waxtaan ci turu télévision bi nga xam ne euh, ma nga foofa ñu ci gërëm kilifa gu mag gi di Serigne Gora ci taxawaayam ak soññe yi mi nga xamante ne bi saa su ne mi ngi ci soññ ngir euh, ñuy wone liggéeyal sëriñ bi rawatina ni taalibe yi dundee foofu sëñ Cheikh Samb kon ñuy dig mbokk yi daje ëllëg ci beneen jotaay gannaaw bu ñu gërëmee seen Mor Talla Sall ak euh, sëriñ Dame Cissé wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.